ànd ko ak l'armée bi ndax boobu ba léegi am na ñoo xam te ñu ngi leen di recaser yóbbu leen ci école yi pour ñu bañ am pour ñu mën a am fu ñu nekk mais xam nga loolu su amee euh, situation bu urgente la donc am na réponse yoo xamante ni au fur et à mesure ñuy avancer ci lay ñëw mm-hmm. mais euh, ci loolu lañ nekk ànd ko ak armée bi ak le génie militaire pour ñu seet nan la ñu mën a taxawoo askan wi euh, jafe-jafe yooyu luñ ci mën a def rek pour mu wàññeeku mu wàññeeku donc loolu moom te doon jaadu ma tàmbalee ko wax ci nga tàmbalee sax foofu laa waroon tàmbalee. ñu ngi mhm. mastawu ñëpp par ma voix Sénégal 7 mu ngi mastawu képp ku nekk ci région yooyu rek ba Tamba ak Bakel ak waaw fépp fu waay nekk rek te mbir mi daal di laa nga loru ci donc ñu ngi lay euh, donc soutenir en quelque sorte. waaw léegi nag suñ dee ñëw ci référentiel. waaw euh, c'est quoi un mooy nattuwaay. référentiel mooy nattuwaay nattuwaay. d'accord euh, te. mu ngi amee ci jamono joo xamante ni dafa am lu ñu lu jiitu parce que c'est important ñu fàttali ko. Mm-hmm. ndax jamono yële ci ginnaaw ci euh, vers fin septembre le premier ministre ànd na ak ay ministres du gouvernement am taxaw wax ak sénégalais yi ci situation réew mi. Mm-hmm. wax leen réew mi fan la toll. Mm-hmm. loolu mu ngi doon def ci li nga xam ne loolu tout de la situation de référence. situation mooy bi ñu jotee réew mi fii lañ fekk réew mi réew mi fii la toll. ci wàllu am-amam ci wàllu koom-koomam ci wàllu mën-mënam ci wàllu boram ci wàllu jafe-jafeem. donc bi mu ko defee euh, xamaloon fi situation réew ndax ba mu ko waxee itam sa dégg nañ euh, la mu jur ci coow. Mm-hmm. jur na coow waaw jur na coow parce que c'est tout à fait normal ndax ab réew bu ñu ko yoree ci fukki at ak ñaar. Mm-hmm. ci loo xamante ni ci euh, ay nax la ak i lépp ngir rek bëgg nga. Euh, wax lu neex nit ñi pour ñu mën laa sànnil seen carte yaakaar naa boo demee ay nit ñëw xam bu baax ni nga daan doxalee ndax ñun yàgg nañ wax ci bi ñuy nekk ci opposition que ni chiffres yi nii ñuy joxe di ko jox Sénégalais yi ci seen alal ci seen koom-koom chiffres yi méngoowoo li nga xam ne mooy mooy dëgg. Mm-hmm. te bi ñuy ñëwee itam feeñal lañ ko donc bi ñu ko waxee nag sénégalais yi mais loolu dafa jaadu pour ñu xam ko. ndax dégg nañ leen ñoom ñu ne situation bi waruñu ko woon wax waruñu tiital sénégalais yi waaw mais ki la wóolu jug dem voté la tabb la dénk la euh, baatam dénk la xalaatam dénk la gis-gisam dénk la sécurité dénk la léppam kooku ken yaa bu amee lu xew sa wareef mooy yow dangay ngay taxaw ne ko ah lii de moo fi am. Mm-hmm. parce que ñoom risque lañ wax. waaw parce que yow tey jii boo doon dugg ci kër war a ah mais boroom kër dina la ne kaay xool kër gi état bi tool lan moo tax ngay visité xam nga mun nañ la ne rek gis nañ courtier bi mën nañ ñëw ne la gis naa benn immeuble am na trois chambres salon xaalis bii la yow nga ne ko d'accord damay fay rek gar sa bagage dem déet da ngay visiter. Mhm, ba pare lan moo tax ngay visiter pour t'assurer que ni lii nga lii nga bëgg méngoo nag la fay fekk. Mhm. te boo ñëwee itam condition yi war pour nga mën a dëkk di nga ko fa fekk. donc loolu noonu pour nga dem teg ci sa donc ñun tamit bi ñu ñëwee bu ñu la joxee réew c'est bien pour nga def cette situation là donc bi ñu ko defee nag jur na coo waaye def gi ñu ko def pour xamal ne ne ah fii lañ fekk réew mi pour que histoire mën ko marqué mooy situation de référence liñ ci teg mooy ñu ci wax sénégalais yi ne la nii fii la réew mi toll mais dañu indi euh, li nga xam ne moo di Sénégal euh, vision Sénégal deux mille cinquante agenda nationale de transformation parce que loolu la président bi mu faloo ñaari weer rek wala ci weer woowu ci la sant premier ministre liggéey boobu hmm. ne ko dama bëgg nga xalaat ak gouvernement bi feel ak septembre ñu teg ci loxo sénégalais yi këyit goo xamante ni mooy mandargaal ñun li ñu yéene def ci réew mi fas yéene ko ànd ak ñoom waaye wax leen ci ban àpp lay nekk ak nu ngeen koy defee ak nu ngeen koy defee donc loolu la santaane bi mu ko santaane premier ministre boobu ba léegi mu nekk ci mu nekk une euh, situation inédite li am nii. Hmm. parce que gis nañ ñi fi jóge ak lu coow li bari bari bari ñoom toog nañ fi ñaari at soog a andi <laughs> plan Sénégal émergent. moom la ñuy bàkkoo ba tey de. waaw ah, la ñu waaw léegi loolu ñu ngi ko andi bi ñu toogee ñaari at hmm. ñoom toog nañ fi 2012 lañ leen jox réew mi mars 2000 le 25 mars 2012. ñu toog ci réew mi ba janvier ou février 2014 ci la ñuy soog a andi plan Sénégal émergent maanaam deux ans ñu dénk leen réew mi donc deux ans yoo xamante ni sénégalais yi xamuñ gu ñu woon fañ leen doon jëm ak ñoom mais ñun dañu ñëw andi projet campagne ko jaay ko sénégalais yi projet boobu noonu bi ko sénégalais yi jëndee 54 pour cent bi ñu ñëwee dañ leen ne nag léegi dañ koy traduire en act ndax lii yéene la projet campagne li ngay demee yéene la bëgg naa def lii bëgg naa def lii bëgg naa def lii bëgg naa def bëgg naa def lii parce que boobu nekkagoo ci état jotagoo situation de référence ni nga ni réew mi mel xamagoo ko léegi nag soo ko jotee ba xam ni mu mel mooy waral nag nga mën a indi document boo xamante ni ne leen ah bismillah fii laa bëgg jëm mooy li ñu andi vision Sénégal 2050 foofu ma ci indi benn leeral balaa ñoo sori ndax dégg nañ àddukatu euh, <laughs> niñ koy wolof di waxee àddukatu <laughs> kalpew pas-pasu militant yeeg sénégalais yi ndax réew mi dafa am ñoo xamante ni ñoom dañuy àddu kalpe pas-pas ak ak ak ak ak ngëm-ngëm ci état <laughs> dafa am opposant looloo seen yitte ñoom dañuy nelaw ba 10 heures 11 heures ñu xool euh, dugg ci réseau yi xool fan la fan la température bi ak tendance bi toll ñoom seen opposition noonu la demee ñu xool fii la tendance bi toll rek ñu jël bind ñaar ñetti wala ñeent ñeent ñeent baat rek lancé mais euh, dañ leen koy nangul parce que réewum démocratie lañ nekk mais ay opposant àddukatu kalpe pas-pas lañ ndax ñoom lu yàq xel rek ci ci la ñuy yëngu waaw mais looloo am te bu ñu waxee dañuy wax rek jéem a dañuy wax de mais jamais ñu andi firnde wala ñu jéem a dindi ci li li ñu def ci xam-xam parce que ñun looloo ñu ëppal solo mm-hmm. ñun bañu ñu débat di de ñun ah xanaa ma bañ a ne eh, ma ñu modeste rek mm-hmm. humble waaye débat di de ci politique fii ah guléet guléet Sénégal lan la ñuy waxtaane ay dette publique finance publique la ñuy waxtaane ay notation Moody's mais yooyu dañ ko doon dégg ci réew mi bëriwul woon nee ah, woon na d'ailleurs sax soo fi doon wax ñun boo ko daan wax sax ñu naan xamoo leen dara ci li ngeen wax noppi leen donc bu Sénégal tollee ba ñuy dem ba ñuy waxtaanee dette publique di waxtaanee déficit budgétaire di waxtaanee notation Moody's di waxtaanee euh, marché financier régional international mais dañu sant yàlla mais ça nag grâce à kii grâce à foog ñu nangu ko ko nag mais ñoom nee nañ suite logique la ci li ñu teg PSE bi ngeen ñëw copier coller ko di dox mënul parce que ñi nga fi tudd léegi noonu mënul mënul nekk PSE copier coller dama lay jox firnde gi euh, vision soo nee da nga vision mooy fii laa bëgg jëm mhm. nga ne euh, Sénégal 2050 bëgg naa suñu àggee ci 2050 mhm. Sénégal nekk réew mu souverain mhm. mooy maanaam mënal boppam sañal boppam juste mu nekk réew moo xamante ni képp kuy citoyen loo yittewoo wala lu état warloog yow jëm ko matale prospère mooy li état am ci xéewal ak teraanga ak koom-koom sénégalais bu ci nekk mën cee jot wàllam ba pare nag loolu yëpp su amee na am ci réew moo xamante ni dafay dëgg tànkam suuxat boppam ci ngëm-ngëm ak valeurs yi nekk ci réew mi ak panafricanisme loolooy gis-gis cette vision là 2050 yàqkatu xel yi opposant yàqkatu xel yi àddukatu kalpe pas-pas yi dégg naa ñu naan mooy réponse raccourci yi rek waaw dañ dañ ne sénégale yi nañ muñ ba 2050 leen a gëmloo déedéet ne leen da ngeen leen di génn ci guute gi ñu nekk effectivement di xaarloo de waaw loolu lañ wax ñoom dañ ne dañ ne dañ wax sénégal ne ne xaar ma jox leen exemple bu ndaw yow du dégg nga Nations Unies. ñuy wax les ODD 2030. objectif de développement durable. durable 2030 parce que soo amee li ñu tuddee agenda dafa am lu ñu tuddee agenda agenda du du du du du benn fan. du calendrier wu weer. wala juróom benn weer walla at walla ñett at wala ñeent wala juróomi at gis-gis bu sori la. parce que li nga bëgg a liggéey yéene ko sa réew mënul nekk ci juróomi at kese mënul mm-hmm. nekk ci fukki at kese mënul nekk ci fukki at ak juróom kese donc day tàlli mm-hmm. yow nag da am fooy tàmbale yow xëy na am nga benn terrain mm-hmm. boo xam te ne 600 mètres carrés la ci biir Ndakaaru bëgg nga ko tabax def ko R plus 11 waa xam da ngay dem simpi R plus 11 vële rek ñëw samp mënta ne di naa ci diir mm. ci bëgg ah di nga ne ah boo dee ab góor góorgóorlu nga ne ah am naa terrain bëgg naa tàmbali tabax nga dem seeti architecte architecte bi dem seeti bureau d'étude ngeen def seeni plan plan archi plan béton yooyu yëpp ngeen teg mu ne la ah tàmbali gi de projet bi yëpp lii lay coûter waaye nañ tàmbali bu defee rez de nga teg benn étage bu koom-koom yokkee nga xoolaat ak banque bi mu dolli la xëy na niveau bii da nga defoon ñaari appartement mais xëy na ci kaw di nga mën a def ñett appartement noonu nga koy defee donc lii tamit ci loolu la wéeru lu mel noonu 2050 soo nee 2050 nga ne agenda national de transformation. Mm-hmm. lan ngay transformer. parce que ñun dafa am lu ñu jaay sénégalais yi ce qu'on appelle la rupture. baatu rupture dañ ko woote te lu ñu gëm la te lu am la keroog le premier ministre Ousmane Sonko wax na ko bi ñu nekkee CICAD nee na.